mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi santar suñu boroom subhanahu wa taala ci dajawaat ci ab néegam fas yéenee jël benn bind ci li nga xam ne dañ koy tuddee fiq ñu ciy sukkandikoo téere bii di risaala bu ibn abi zayd alxayrawaani ñu yëgsi woon ca fanweeri lu bunt bi ak juróom benn mooy baabu 36 fi shufa wal hibba wa sadaqa ñu jëloon ci benn bind dimanche bi passé ba yegsi tey fi ñuy wax wa man xabasa daaran fa hiya ala ma jaalaha alayhi bu dee yow mi yor traduction bu xonq bi yaa ngi ci page quatre-vingt-dix nga xool rek ci ñetteelu paragraphe ba wa man xabasa daaran fa hiya ala ma jaalaha alayhi yow mi yor samrudaani bi yaa ngi ci page cinq cent cinquante six ci deuxième ligne bi wa man xabasa daaran kon mbokk yow mi fekke woon dimanche passé bunt bi borom téere bi mi ngi ciy doon jàngale li ñuy tuddee shufa mooy nit ki nga bokk ak moom mbir mu bëgg koo jaay islaam ne yow day am nga àq ci ni yaay priorité ci ñu jaay la ko ñaareel bi mooy alxiba mooy ak maye ñetteel bi mooy asadaqa mooy ab sarax kon ñeenteel bi lañuy jël tey mu ne wa man xabasa daaran koo xam ni danga fekk benn kër mi ngi gën a siiwe ci li ñuy tuddee waqf mooy taxawal benn kër fa hiya ala ma jaalaha alayhi kër googee day nekk ca lam koo jagleel ñeel ko in xiisat qabla mawtihi su dee ne kay jël nañ ko jiitu muy faatu walaw kaanat xubsan ala waladihi saxiir su dee nag fekk da koo def ñeel ay doomam yu ndaw jaazat xiyaazatuhu lahu dana dagan moom mu gardel leen ko mu jëlal leen ko gardel leen ko ila an yabluga babaami majeur wal yukrih xaalahu su boobaa nag na ko ko luyeel wala yaskunuha waaye bu mu ko dëkki fa in lam yada sukana suknaha su bàyyiwul dëkke gam koy dëkkee xatta maata ba ba muy faatu batalat loole mu fegoon defoon ko waqf day neen wa in qarada wa in qarada man xubisat alayhi bu ñu demee ba jeex ña nga xam ne dañoo fegoon mbir ma ñeel leen rajaat xubsan day dellu yit nekkaat ba tey rek waqf ala aqrabi nnaasi bil muhabbis ca ña gën a jege nit ña ca nga xam ca ka taxawaloon waqf ba yowmal marji bis ba muy dellu siwaat ci moom mi ngi noonu mbokk kon kii day jàngale fii benn mbir boo xam ne siiwul ci nit ñi xamuñu ko lu bari lan mooy waqf mooy nga daal di jël benn kër ne kër gii day jagleel naa ko yàlla léegi yow nga jagleel ko ne na ci ay nit sàngam di dëkke walla nañ ko luy lu ci jóge ñu def ko ca place sàngam kër googee ba ba muy màbb di ràpp kenn amul droit di ko jëfandikoo lu dul lañ ca wax noonu lay amee ci ab tool nga ne tool bii kat jagleel naa ko mbooloo sàngam wala jàkk sàngam lépp lu ci juddoo ne dellu ci ñoom bu ñu xoolee Usman ibnul Affan radiallahu anhu am na ay jardin yi mu defoon waqf ci dundam tey boo demee Arabie Saoudite ay chaîne d'hôtel la ñu am ay entreprise c'est des milliards yoo xamee ne nii tey mi ngi nekk waqfu Ousmane ca loolu depuis quatorze siècle la ko defoon ci ay tool moo màgg ba jur lim jur kon waqf bi mën na multiplier wu lépp lu ciy juddoo ñu investiraat ko investiraat ko ba mu jur lu bëree bëri loolu nag ak jaamu yàlla la goo xam ne ñu bëri xamuñu ko mën naa nekk ci am oto booy def waqf am nit koo ko jox ne ko lii kat waqf la amul droit di ko jaay jëfandikoo rek la ca man wala féeti lu ko jàkka ja wala école ba wala hôpital ba ala kulli xaal lépp loo xam ne dañ koy jëfandikoo mën na nekk waqf te mi demoon tey jii ca la nga xam ne ñi ab dëkk jënd leen ay machine wal loolu nekk waqf ay machine yi ñuy bàyyi loolu nekk waqf kenn du ko moom dañ koy jëfandikoo rek ba mu jeex loolu mbokk ci tuyaaba yi gën a màgg la bokk moom la yonent bi alayhi salaam doon wax naan nit ki bi faatoo ay jëfam dañ koy dagg ba mu des ñetti mbir mooy doom ju baax du koy ñaanal xam-xam boo jàngale ñu koy jëfe sa gannaaw ak sarax boo xam ne day continuer sa gannaaw loolee mbokk ñu góorgóorlu bàyyi ci xel man nga koo def ñeel la man koo def ñeel say waajur wala comme lu neex ci jaami yàlla yi mooy tabax kër gas teen lu mu mën a doon jagleel ko say waajur wala ku mu mën a doon ci jaami yàlla yi faatu woon wala jaami yàlla yi dund loolu lay wax ci wàllu googee waqf boobee mu ne mën na nekk ñeel say doom masalan nga jëloon benn kër ne kër gi day jagleel naa ko sama doom yu ndaw yi lépp lu ci juddoo nañu leen ko taxawee ñu ngi noonu seenoom njàng ak seenoom lu demee noonu ñoom ñoo ko moom jàngoon nañ dimanche passé ni bàyyi dagan na mu may doom fii ak may ga jurul ak noonoo ak frustration ci diggante yeneen i doom ya mu ne nag su boobaa kër googu mu ko may warul continuer di ko dëkke du kër gu muy dëkke fokk kër gi da koy loué wala mu def ko neneen mais mu ne bu ci dëkkee bu baa muy faatu loole mu defoon waqf ñeel doom yi day doon loo xam ne ni lu neen la léegi nag mu ne su dee ñu dañoo dem ba ki ñi nga xam ne dañ leen a jaglee loon waqf bi masalan nga ni lii day jagleel naa ko mbooloo sangam wala daara sangam ñu dem ba lan ko jaglee loolu loolu amatul mu ne su boobaa waqf bi day dellu ca cosaanu famille ka nga xam ne moo ko defoon waqf ñoom ñoo koy gérer waat xool ana fan lañ koy féetale loolu mbokk moo aju ci loolu ma lu wax ni lu bari tey ci boromi alal xamuñu ko am lu mat ay kër yu dul jeex yoo xam ne nii boo dee xamul nu muy demee mënoon nga caa jagleel yoo xam ne moom yàlla tax nga taxawal ko day wii sarax ba jële fekk sa bi ila yawmi din suñ jëlee bind bi ci topp mu ne wa man amara rajulan xayaatahu daaran koo xam ne daa dëkkal benn góor ci dundam jox ko benn kër ne ko dëkke ko rajaat baada mawti saakin day dellu gannaaw faatu kaka dëkke woon milkan li rabbiha doon moomeel ñeel ka moomoon kër ga wa kazalika in amara aqibahu naka noonu bu dee dafa dëkkal la nga xam ne moom mooy njabootam ay ñee sosaanoo ci moom fanqaradu ba ñu dem ba njabootam yépp ay sëtam ak yépp xamatuñ ca kenn bu jeexee loolee kon waaja day jëlaat këram bi xilaafil xobus mu safaanoo ak waqf bi ñu doon jàngale sànq loolee moom kenn du ko moomaat fa in maata al mu am fa in maata al mumir yowma isin su dee ka moomoon kër ga ca joxoon ko waaja mu dëkk faatu woon na kaanat li warasatihi day dellu ñeel ña koy doon yowma mawtihi ñee bis bu mu faatoo mu nekk milkan nekk moomel ñeel leen masala bi moom bu jege la ak liñ doon jàng sànq waaye bokkul soo xisee ba def leen waqf loolu génn na say loxo kenn du ko donnati ci yow moomatoo ko alali lislaam la ngi noonu kan ka jox itamit moomu ko amul droit jaay ko amul droit def ca lenn lu dul la nga wax moom lañ koy jagleel lii nag moom beneen kaa la mooy waa ji moo moom këram woo benn waay na ko yow day kër gi jox naa la ko nga dëkkee fii ak yaa ngi dund fii ak yaa ngi dund daal kër gi sa kër la ko mel noonu dañuy gis ne fii ak mi ngi dund waa ji moom moo jagoo kër gi am bu la neexee dolli ci ne ko fii ak yaa ngi dund wala sa njaboot am ku ciy dund kër gi moom seen kër la heure bu ñu demee ba waaj a faatu kan ko joxoon bu dee ci moom la yem wala njabootam xamatuñ ca kenn su boobaa day delluwaat ca ka moo mën kër ga su dee ne ka moo mën kër ga faatu na ña ka war a donn ñoom donnu kër ga ci loxoom ndax waa ji mayewu ko woon da koo able woon able gu aju ci ak dund loolu kon mooy différence entre li ñuy tuddee xabs muy alwaqf ak li ñuy tuddee imaar mooy jël nit ki na ko dëkkeel ci lii baba yàlla subhanahu wa taala di dogal nga faatu wala sa famille faatu loolu kon lay wax ci wàllu googee mi ngi noonu buñ jëlee beneen bind mu ne wa man amara maalan wa man amara rajulan képp koo xam ni nii dafa dundal nit ki ci kër xayaatahu li di dundam daaran ay wa man amara rajulan xayaatahu daaran koo xam ne daa jox benn waay kër mu dund ko ci dund ci dundam rajaat ba'da mawti saakin kër ga dana dellu gannaaw ba ka ko dëkke woon milkan li rabbiha doon moomeel ñeel ko ko moom wa kazalika in amara am li jàng dafa mel li jàng nañ ko non waaw kon lii dafa mel ne ja jàng nañ ko non waaw waman maata la ñu war a jël non kon mu ne waman maata min ahlil xubusi koo xam ne faatu na ca ñooñu ñañ jaglee loon waqf ba fa nasibuhu ala man baqiya cëram dañ koy delloo ñu des rek wa yusaru fi lxubus des na gënale ca la nga xam ne mooy waqf boobu mooy taxawal mbir ahlul xaaja ña nga xam ne ñoo aajawoo bi sukna ca dëkkwaay ba wal xalla ak ca bénéfice yay jóge ca kër ga wala ca tool ya wa man sakana fala yaxruju li gayrihi koo xam ne jotoon naa dëkk ci kër ga kenn du ko génne ngir keneen illa an yakuna fi asli lxubusi shartun fa yamdi xanaa lu dul génne googee nekkoon ca cosaanu waqf ba mu nekk charte su boobaa loolu lañ koy wëyal wala yubaaul xobus lépp luñ taxawal def ko xabus kenn du ko jaay wa in xariba doonte ne dafa mabboon kër ga wa yubaaul farasu waaye nag dees na jaay fas al xubusu ba ñu fegoon yàq la bu mooy bu dee am na ndox bu ko dikkal ba muy nekk di mattaate wa yuj'alu samanuhu fi mislihi ñu jël nag la nga xam ne moom mooy prix bañ ko jaayi def ko ci fasu mel na moom aw yu aanu bihi fiihi wala bokk ñu dimbali koo ko ci am beneen bu mel na moom waxtilifa fi lmuawadati bir bir rubi bokk na loo xam ne dañ koy wuute ci échange bu ñuy def bi rab i ca la nga xam ne mooy terrain mooy kër alxarib boobu mabb bi rab in xëyri xarib ndax mënees na koo wuuteeg kër goo xam ne nii mabbul mi ngi noonu rappul kon mbokk day wax fii nii dañoo jël benn mbooloo masalan jël nga benn famille ne jagleen nga leen kër sangam wala tool sangam ñooñee bu dee am na ku ca dee cër ba day dellu rek ca ña des ñoom ñooy continuer yor loolu waaye kenn du jël cëram di ko donnale kenn ku mën a doon lañ def xabs nga féetewoo ko loolu du luñ lay doon ñi nga noonu mu ne itamit bu dee dañoo jagleel xabs boobu mbooloo ña ñi gën a priorité mooy ñi ca gën a ñàkk ci ñoom ñoom lañ ñooy jiital ci ñu dëkkee ko ñoom la ñuy jiital ci bu dee am na bénéfice su ci juddoo ñoom lañ koy jagleel ñaxis ba dëkk ba pare it duñ leen génne di dëkkal keneen lu dul mu nekkoon charte boo xam ni waaja moo ko defoon masalan mu ne kër gi day ko fi dëkk un an na génn jox ñeneen ñu dëkk un an masalan ki nga xam ne dafa am ak këram kër gi dem ba màbb kër gi yàqu ndax kër googee waras na koo jaay wala dañ koy jàpp ne ah xabsa bu moom jeex na moom danaan kenn du ko jaay doonte na ca fin ba dégg muy wax ni ixtilaaf da caa am waaye tamit la gën a dugg xel mooy su dee kay mënees na koo jaay am luñ ko jëfandikoo ci leneen moo gën ñu bàyyi ko noonu mu niil ci lu mel noonu lay wax ci fas woo defoon waqf loolu wax naa ci Saalum la ñuy wax ak ay Jolof waaye bu doon Ndakaaru oto la ñuy wax masalan nga jël benn oto ñëw jox ko benn waay na ko lii day def naa ko waqf fi sabilillah bu ko defee yow moomatoo ko waaye waa jiit moomatu ko oto bi oto waqf la bis bu waaj a faatoo dañuy seet ko ko yoo ñu jox ko ko ba baa oto ba di yàqu léegi nag bu dee dem nañu ba masalan oto ba mënatula dawat ndax la nga xamee ne moom mooy jëmmi karkaas ba mënees na koo jël jaay ko ngir dugal ci beneen oto loolu da ngay gis ni mbir la boo xam ne bu mën a nekk la amma bu doon àll ba la ñuy waxi fas yi léeg-léeg fas yi dañuy dem bu mujj am ndof gu dugg ci seen biir lu mel ni lii dal xaj yi moo tax nga dégg mën a yëkk la bu xam ngeen xaj bu àndee garage day dof bu ko borom jegee sax mu màtt ko am nit fas yoo xam ne dañuy dof ku leen jege ñu dal sa kaw su boobaa bu doon fas yi lañ def waqf ku mel noonu mu ni da ngay gis ni bu dee gis nañ ko ko mën a jënd dañ ko koy jaay moom mu xam nu mu def ak moom ca lañ ca jëlee ñu delloo ko ca la nga xam ne mooy waqf boobee kon mbokk yi bu ñu xoolee ñaari masala ngi ñu jàng ko benn bi mooy waqf bi nga def mu génn say loxo moomatoo ko keñeen moomatoo ko beneen bi mooy li nga xam ne da nga koo joxe ay nit ñu dëkkee ko sa jubluwaay mooy seen dund fii ñu ngi dund ñu ngi koy dëkkee waaye bu ñu faatoo mu dellu siwaat ci yow loolee kon mooy ñaari masala yooyu ñuy jàng bala ñoo dem ci beneen masala bu bokkul ak ñoom dara ñàkkul xëy na mbokk yi am lenn luñ ci doon bëgg a leerlu incha allah bala ñuy dem ci beneen masala naam waaleykum salaam wa rahmatullah naam ala kulli xaal xam nga comme moom ñun dañuy topp di téere bi jàngale rek téere bi moom moo jàngale ni fas yi bu demee ba mel nangam nañ ko jaay am na koo xam ne nii xëy na moom xam ne ne fas yu dangereux waaye moom am na pexe bu mën a naxanteeg moom mi ngi noonu am naa sama benn waay bu moo xam bu baax léegi màgget la moom fas yu dangereux yooyu rek la bëggoon di jënd gis ngeen fas yu dangereux la bëggoon di jënd maa ngi fàttali ko benn fas bu ko ci mas a jàpp ba mbagg bi summeeku kon xëy na nit ki moom lu la sonal keneen mën na ko jëfandikoo waaye ala kulli xaal loolu la wax mooy daal bu dee ni gis nañ ne danger la suñ ko mënee jaay nañ ko jaay dugal ko ci leneen wallahu subhanahu wa taala alam naam wala kulli xaal ñaari masala yëpp jàng nañu ko masala kër gaa ngi nii dëkkee ko fii ak yaa ngi dund ki nga jox kër mu dëkkee ko fii ak mi ngi dund moo xam ñu mu fay dëkkal mu des kër gaa ngi nii jagleel naa la ko yàgg say njaboot fii ak am na lu bokk ci yow di dund seen kër la ñaari masala yëpp lañ jàng bu jëkk bi heure bu waa ji deeyee kër gi day dellu ci moom ñaareel bi tànk waa ji ay doomam wala ay sëtam ña nga fa kër ga day nekk seen kër suñ demee nag ba gis tuñ ci kenn en général ko ko joxe wu ñu day fekk dee na mi ngi noonu ndax mooy mooy mooy réalité lu ci bëri day fekk dee na kon ay ndonoom ñuy jëlaat kër gi waaye duñ ko jox keneen ku bokkul ak ay ndonoom mi ngi noonu naam comme ni nga wax rek ut li nga xam ne mooy Sénégal am na benn kii boo xam ne def nañ ko pour contrôler ñi nga xam ne dañoo bëgg a def waqf ci Sénégal loolu it day tax ba tey jii masalan boo doon tabax am yombal yi ñu la def ba bëggoon importe lu jëm ci wax am yombal yi ñu la def ba mbooloo boobu di fonds sénégalais de la zakat am na ay daje yu bëri yoo xam ne nii ñi ngi ko doon am ak ñoom ak autorité yooyu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon ñu jël bind bi ci topp mu ne war rahnu la nga xamee ni nii mooy garantie jaizun lool day lu dagan la wala yatimmu illa bilxiyaaza waaye du mat mukk lu dul ne fekk dañ koo jël denc ko wala tanfau shahaadatu fi xiyaazatihi du jëriñ la nga xam ne mooy seede ci na waajikat jël na lañ ko denciloo lañ ko garantiloo illa bi muaayanatil bayyina lu dul ci gisug bët gu ñu seede gu leer naññ wa damaanu rëhn lii di garanti la nga xam ne moom la ñu tayle minal murtahin day nekk ca nga xam ne moo ko tayle fii ma yuxaabu alay day ne day nekk mi ngi noonu ka nga xam ne dañ ko koo tayle fii ma yuxaabu alayhi ci loo xam ne day faddu ñu mën koo denc wala yadmanu waaye nag du garanti ma la yuxaabu alayhi loo xam ne nii kenn du ko mën a denc wa samaratul naxl léegi meññeent bay jóge ca tàndarma ya ay samaratu naxli rahni li rahin meññeetu tàndarma gan tayle waa ja tayle moo ko continué moom wa kazalika xallatu duur naka noonu it la nga xam ne nii moom mooy bénéfice bay jóge ci kër yi bu dee dañ ko luye wal wala di rëhn doomu ka kañi tayle ma al amma fekk mu ànd ak jàmbu jigéen ah rëhni mooy amatu rëhni mooy jigéen ba ñu tayle talidu taliduhu baad rëhn su dee da ko jur gannaaw bañ taylee yaaye mit du tee ka moomoon jaam jamay moom doom jaba tey wala yakunu maalul abdu rahnan illa bi shart du nekk mukk alali jaam bañu tayle mu bokk ca tayle ga xanaa lu dul dafa ànd ak shart wa ma halaka bi yeddi amin lépp lu alku ci loxo yi ku wóor fa huwa min arrahin loolu day dellu ca ka nga xam ne da ko moo tayle woon mi ngi noonu mbokk lii beneen masala lay génnee mooy masala tayle tayle mooy lan mooy waa ji yaa ngi ñëw di ko leb leb googi pour garantie ne da nga ko fay nga yëkkati du am valeur loo xam ne dina méngoog la nga koy leb wala mën na ko sax ëpp moom mu téye ko comme garantie heure boo ko fay see mu delloo la la nga xam ne nii da nga ko ko joxoon loolu la ñuy tuddee rëhn mooy garantie ñu fàttali ni suñu yenent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi muy faatu mbubb bi mu doon sol buy geer mi ngi ko garanti ci benn yahud ngiree mu lebal ko saako pépp bu mu dundale njabootam sallallahu alayhi wa sallam ci buur boo xam ne daa jiite empire moom la Victor Hugo doon wax mooy benn roi bu ñu ma sax xam dans l'histoire bu jiite empire ba pare njabootam di fande ci yonent yi yàlla muhammad dong lañ ko gisee sallallahu alayhi wa sallam li nga noonu kon loolee mbokk dañuy gis ne nit ki lam ñëw joxe fa garantir ka mën a seede loolu du ay wax la ciy seede fokk da koy gis fekke naa diw de bi muy jox diw garanti nangam léegi nag waa ji garantir nañ ko biñ ko garantiree ñaari garanti mu mën a am loo xam ne mënees na ko laq masalan waa ji ñëwoon na garanti chaîne oram soxna si wala góor sax mën nañ di chaîne oru garanti ko léegi ki nga xam ne dañ ko ko garanti ëllëg ki si biir bu ñëwee ni man kat la ngeen ma joxoon gisatuma ko ah dañ naan ko yow yaay responsable amma bu dee ne lañ ko garanti du lu ñuy mën a nëbb moom kat ab oto la wala yu demee noonu ñu garanti ko loolee fayaguñ ko ko mbir ba yàqu kookee amu ci benn responsabilité loolu lay wax ci wàllu googee waa ji ñëwoon garanti këram kër googee ngir waa ji lebal ko xaalis waa ji jël kayitu kër gi téye mu ne du tee lépp lu juddoo location ci kër ga ka moom kër ga ci moom lay dellu ki ñëw garanti woon ab toolam du tee lépp lu ci juddoo ci meññeent ka moom tool ba ci moom lay dellu loolu lay wax ba yegg ci la nga xamee ne nii moom mooy ay jaam yi daan tayle bu njëkk boo ko taylee sa benn jaam bu jigéen mu garde ko fa mu am fa doom doom ba du tee ka tayle moo ko moom bokk na yëpp ci li muy wax mooy lépp loo xam ne dañ koo jox waaju wóor nga ñëw garanti ko jox ko ko yàlla dogal mbir ba yàqu ca moom ñépp xam nañ ak wóoram su boobaa dañu naan yow mi ko garanti woon kat xamal ne yaay perte ndax kii ku wóor la ca garde ne mbir mi kemtalal kattanam loolu mbokk da ngay gis ne mooy la nga xam ni tënk na ko ci wàllu googee nga xam ne nii mooy wàllu garanti nga xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi koy wax wa in kuntum ala safarin fa rihanun maqbuda bu ngeen nekkee ci tukki amu leen ga amu leen ay seede na nga ut garanti jox ko te loolu it mooy wàllu bor bor la nga xam ne moom la ci lislaam waxoon pour bañ problème nañu indi ay seede ñu bind ko seede ko wala boo ko waajee lépp jël dara loo xam ne nii da koy def tayle jox ko waaj da ko tey lii lebal ma léegi bu ñu demee ba waa ji ñu war koo fay mu mën a dem ca attekat ba ne ah moo ma leboon nangam de lii la ma garanti woon su ko defee waa ji bu mun ta fay lam garanti woon la ñuy jël jaay ko su tombeek bor ba xëyrun su dee manqué na bor ba ñu ne ko léegi yaa desal waa ji nangam su dee ëpp na bor ba ñu delloo ko la nga xam ne nii moo ca des donte ne lu bëri ci nit ñi ni ñuy garanti da ngay gis ku ñëw garanti lu am valeur masalan ñëw na jox la chaîne soxnaam boo xam ne cent cinquante mille lay jar peut-être nga lebal ko cent mille ñu ne léegi nañ dem ba fin du mois nga defee fin du mois ñu dem fayu la nga naa kon moom ñàkk na déedéet mbokk wurul demee noonu la ñu garanti dañ ko war a xool ndax méngoo na ak bor ba wala ëpp na bor ba wala yées na bor ba su dee ne jaay nañ ko jaay gu normal mu yées bor ba ka lekk si woon xam ne dese na su ëppee bor ba ñu delloo ko la nga xam ne moom la garanti woon kon loolu lay wax ci bunt boobu mu am beneen bunt bu nekk ci gannaawam naka noonu it bu doon te ni am na koo xam ne dafa doon laaj ci wàllu googee bala ñuy dem ci beneen bunt bi incha allah su dee ne amul ñu dem ci beneen bunt bi incha allah naam bismillah naam da nga yëkkati baat bi tuuti ah waaw waaw waa ji mu ne def la tayle ab tool tool boobee yow nga ko jël di ko bay nga lebal ko xaalis ngay bay tool bi léegi nag fii ak delloo woo ko xaalis moom day continuer di bay tool bi ala kulli xaal loolee bu dee dafay am dafay am ci loo xam ne charte la yu ngeen di bindante waaye tool tayle ga ko waa ji tayle siriwul ni la cay juddoo kam ka tayle moo ko moom amma bu dee suufas neen la soo xamee ni nii amul meññeent bu ca nekk waa ji moom moo wax ni jël na suuf bi garde ko léegi yow garde nga xaalisam man danay bay tool bi heure ba ma fayee nga jiral sa tool loolu dee bu dee charte la yoo xam ne nii dañ koo chartoo loolee duñ ci gis benn problème ndax waa ji suuf kese la ko jox mu delloo ko suufam amma bu dee tool bi da am meññeent bu cay génne su boobaa waa ji amul droit di fayoo ko borom ba pare di jël meññeetum jàmbur mboolem meññeent bu ci juddoo ka tey la woon tool bi moo ko moom bu doon ak juro naka noonu waa ji nga xam ne dafa garde jur ga ca nekk loolee bu dee moo koy dundal dana am droit di naan ca soow ma ak yu demee noonu amma nag bu doon te ne ne moom dafa am lu ca juddoo ci ak jur da koy delloo waa ja nga xam ne moo ko ko tey la woon comme niñ ko waxe sànq ci jàmbu jigéen bi wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam waaleykum salaam waa ji nga xam ne dalaa tayle ne la bis sàngam nga fay danaa la fay si amoo droit di jaay tayle ga lu dul bis ba jot su bis ba jotee nag nga ñëw na ko saa waaye fay ma sama xaalis su dee ne moom nangu wala fay da nga koy wax ne kon maa ngi jaay tayle gi dama soxla sama xaalis te bu boobaa am nga droit jaay lam la tayle woon ngir jot sa xaalis ndax loolu rek muy jubluwaayu tayle mooy mu nekk benn garanti boo xam ne nii wóor na la ni waa ji moom dana la ko fay loolu nag fi yëg yëggul ci yoo xamee ne nii dafay nekk ci ay lor looloo tax yii yëpp masala atte la du loo xam ne dañ koy wax nii rek mais islam it bu tërali loi yi day fekk ne dafa tëral ab atte ndax tey waa ji mën na ñëw jël kayitu këram jox la ne la dimbali ma lebal ma deux cent mille dama am soxla urgence sama kayitu kër ngi nii danaa la fay nangam ndax dañ naan fay dama bu la fayul da ngay dem jaay kër ga déedéet atte kat du wax loolu mooy lu nekk rek dañ koy jox raison dañ koy jox lam yeeyoo ci atte waaye daal nañu xam ne jubluwaay ba nga xamee ne mooy tayle mooy waa ji am garantie ci benn moom même bu seede amul lebal naa ko garantie baa ngi nii te it am naa fu ma sukkandiku pour ëllëg gi si biir fokk danaa jot sama xaalis mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam ala kulli xaal loolu mooy li am ci àll bi ni mu ko waxee mooy ñu bëri usurier la ñuy doon foofu am alal ju dul jeex baykat yi dañuy sonn jamono nawet gis ku ñëw garanti la chareetam ñi garanti la seen maçon yi ñuy bayee ñi garanti la nangam nga waxanteeg ñoom bis sangam pour yow bu bis ba jotee rek c'est fini ñoom perte nañu waaye l'islam gisewul noonu l'islam daa gis ne bis bu jotee demal wax waa ji ma fay la waa ji def ay pexeem ngir fay la su dee ne pexe amul pexe amul su boobaa ay attekat ñooy ñëw xool lii lan mooy valeur am ñu jaay ko jaay mu normal seet la ca waa ji yeyoo ñu jox ko ko yow it lañ ca yeyoo ñu jox la ko loolu moom mooy la nga xam ne mooy mbir bi gannaaw bi itamit waa ji nga xam ne da nga koo nekk tey la ko la nga ko tayle ci ay machine ak lu mu mën a doon amul droit di ko utiliser lu dul ci loo xam ne nii ndigalu waa ji la du ko utiliser ci loo xam ne nii mbir ma day mujj nekk doon luy yàqu ni ñu ko waxee daal bu doonte ni ak jur la boo xam ne moo koy dundal am na droit di naan ca soow ma bu doonte ni ne aw fas la boo xam ne moo koy dundal am na droit di war fas wa ci loo xam ni juste raison la du ànd ak la nga xam ne mooy jalgati heure bu àndeek jalgati su boobaa da nga gis na attekat bi day jël daan yi delloo ko ko wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam waaw bismillah aleykum salaam su dee dama comprendre question bi day da nga ne dafa am ay téere moom ñu tëj ko mu ne benn waay na ko abal xaalis su génnee moom dana ko fay waaw waaw mu ngi loolu bu dee ne moom da ko garanti téere bi na ko su ma génnee dinaa la fay day génn wuti xaalis bu mu ko fayee bu ko mun ta fay téere bu ñu ko garanti woon moom la ñuy jaay mu fay ko loolu moom mooy jubluwaayu garanti xam naa li ci gën a ëpp a def nag mooy jël sa kër di ko tey la banque banqueur boo ko taylee sa kër ci lim la lebal la nga xam ne moom la ñuy ñaan bu dégg bëccëg rek yàlla bu am kii pour fay su bañ demoon ba heure bi jeex bañ jël ko ñoom du yóbbu ko ci li ñuy tuddee contentieux même boo ñëwoon ne da ngay jëndaat kër gi sax ñoom dañuy bañ ñoo koy jël jaay ko njaayin mu bon ca nam leen neexe loolu ku xam diggante banque ak ñeeg tayle kër loolu moom mbir la boo xam ne nii kenn waru koy def abadan dul ah su dee waaw waaw na na jël kër gi waaw moom laa la wax dama ne na jël terrain bi loolu day fekk ne terrain bi daa méngóog xaalis ba mu ko leb parce que jàpp naa ne ab terrain bu jër vingt millions nit ki du la lebal cinq cent mille nga ne ko jëlal terrain vingt millions su dee ne nag moom jàpp ñu ne amul xaalis li kii bu mu ko fayee terrain baa ngi nii dafa jàpp ne terrain bi daa méngoog xaalis bi looloo tax mënu ko jëlal terrain bi loolu laa jàpp waaye bu doon te ne terrain bi dafa yées xaalis bi ka ka ka lebal du nangu bu doon terrain bi ëpp na xaalis bi des dizaines de fois moom du ko nangu am naa nag bu dee lam ko lebal méngoo na ak terrain bi mënu ko jëlal terrain bi su boobaa moom amul benn muskila bu waa ji nangoo wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal comme ñu jël beneen beneen bind mu ne wal aariya la nga xamee ne nii moom mooy ak dénkaani muaddaatun boo xam ne dañ koy delloo yadmadu maa yuxaabu alayhi des na garanti la nga xam ne mënees na koo denc fa bu faddu wala yadmanu maa la yuxaabu alayhi waaye duñ ca garanti loo xamee ne nii kenn mënu ko denc min abdin ci jaam aw daaba wala daaba illa an yataadda lu dul waaje dafa fekk moom moo jiggi dayo ca loolee mbokk bunt bi mooy buntu able buntu able li ñu doon jàng mooy leb ak tayle kii nag daa ñëw moom na la abal ma abal ma sa fas bi abal ma sa oto bi walla abal ma sa takkaay gi waa ji mu ne su dee ne dañ koo abal loo xam ne lu ñu mën a denc la waa ji abal nga ko portable abal nga ko chaîne or ci jigéen ñi abal nga ko leneen heure bu ñu loolu ñu ko abal bu dee delloo dafa jot mun a gisutuma ko dañ naan ko da ngay fay yaa ko ab yaa ko yaa ko réeral su boobaa dañ naan koy da ngay fay loolee mu safaanoog tey ki nga xam ne dafa abboon benn oto wala abboon benn fas wala abboon loo xam ne kenn mënu koo denc bi mu koy jëfandikoo yàqu am ca su boobaa dañ naan lii kat ndogalu yàlla la lu dul ñu yëg ne moom moo jéggi dayoo ba def ci loo xam ne waru koo ne def ca lam àbb su boobaa da ngay gis ne du tee moom day garanti loolee ala kulli xaal mbokk loolu kon mooy wàllu abb bokk na benn jigéen bu ñu daggoon loxoom ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tudde ko mu nekkoon ci géeru bann maxzum al maxzumiya da daan abb moroomi jigéenam soo ko abalee mu daal di dem jaay ko heure boo demee jaadu ñëw waayu ana chaine moo la abaloon mu ne la man foo ma mas a abbe foo ma mas a abale ila axiri noonu la doon def nag bañ piège ko ba jàpp ko yonent bi alayhi salaam ne nañ dagg loxoom yaa ngi dégg ndax kooku mi ngi doon sàcc sàcc gu gën a bon ci sàcc googee loole xam ngeen ñu bari ci jigéen ñi lañ koy def ab seen takkaayu moroom ba pare imma échange ko wala imma def ci naka su dul noonu lu ci bëri ne nag suñu borom yàlla du seetaan yenn tooñ yi am na benn histoire boo xam ne ni ñam daloon xam nañu leen kii dafa ñëw ab moroom ji benn lam bu cher am benn xew bu mu dem yàlla dogal lam ba réer mu ñëw wax ko kim ka ki ka ka abaloon ah lam ba ji dafa réer mu ne ko ah non loolu la yàlla dogal amul benn problème loolu la yàlla dogal yàlla ñuy dogal lam ba feeñ soxna sa ka réer la woon ñu woo ko jox ko lam ba comme comme que comme que abal ne na ko garawul mu daal jël denc ab lalam denc ab lamam baba jàpp ne mbir mi sedd na mu dem na jël lam bi yóbbu ko ci benn tëgg pour mu tasal ko ko ay lam yu ndaw ndax xarit bi muy àndal bu ko tekkee da koy xam ndekete ka defaroon lam bi ca la ko yóbbu yaa ngi dégg kooku bi mu xoolee lam bi xam ne kii day kii di lu mooy lam bi ma defaroon fàcc am waay kii bëgg koo tas mu ne ko waa baax na damaa xaw a xat nii dimbali ma rek kii yóbbu ko rek ba gannaaw suba après après nga ñëwaat naka mu dem rek mu woo faccaam ne ko ah sa lam bi day diw indi na ko fii di ko tëgg si ñu dem jëli police police ñëw ci kër gi ana lam bi génn armal bi jox ko ca ay xarit yu ñu daan ànd la mais gis ngeen yàlla du seetaan ak tooñ loolu it kon naka noonu itamit ab dana dagan waaye boo abbee lu ñu mën a denc nga wëlbatiku nag yaakaar ab pare riir na dañ naan di xëy da ngay fay amma bu dee abb goo xam ne nii du lu ñuy denc yàqu ca am ca dañu xam ne lii ndogalu yàlla la mbokk mi ngi noonu jàpp naa mën nañ doy lool ba yàlla dajale waat ñu fi yàlla na yàlla xamal ñu suñu diine wërsëgal ñu dund ko cam nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ndax fecc jigéen dafa doon lu xaram ala kulli xaal li ñuy mën a wax mooy mbir la bu bokk ci lu ñuy sib waaye nekkul loo xam ne nii lu xaraam la jigéen ñi bu ñu nekkee ci bisu céet nga xam ne ñoom dong neen ñoo nekk islaam may na leen ñu tëgg tëgg ga ñuy tëgg seen biir it fecc yi ñuy fecc bu nekkul loo xam ne dafay yàq jukko dara nekku ci ku mel ne Cheikh Ousaymin rahimahullah daana wax lu mel noonu baba mu ne ci yëg ne ni ay jigéen ñoo xam ni dañoon dem bay fitnaal seen moroomu jigéen loolu moo taxoon moom da daan wax ni loolee kon du nekk di yey jigéen di taxaw ci moroomu jigéenam di fecc ndax mbokk ñun falilahi alhamdu ñun africain noir am na bàkkaar yu bari yoo xam ne yàlla musul ñun ci avant internet di xew nag moo tax may wax te mooy ñun musuñu xalaat jigéen di xemmem moroomu jigéenam abadan góor di xemmem moroomu góoram abadan amul Afrique noire yéefee rek jullit nag laa ci yemele loolu mi ngi xewoon ci tubaab yeeg naar yi loolu tax naar yi dañuy gis jigéen bu taaru taxaw di fecc ay moroomu jigéenam dañuy nekk di xemmem ci moom amma fecc ci kanamu góor moom jàpp naa ne du masala bu ñu laaj ñun ñëpp xam nañ ne dagano mi ngi noonu loolu daal kon ci wàllu googee mooy bu dee ragaluñ ci fitna mën nañu wax ni ne suñ ko toléré suñ ca ragalee fitna nag dañ ko tere ngir fitna mi ngi noonu allahu subhanahu wa taala alam naam naam aleykum salaam
waa ji jël deux cent millions delloo moom jot na deux cent mille ba pare bay na toolu jàmbur faataan ñetti at
ala kulli xaal bépp leble boo xam ne dafa jur intérêt loolee nekkul loo xam ne nii lu jaadu la su dee ne tool ba waa ji ab toolam la boo xam ne da koy jël di ko jëfandikoo ka nga xam ne moo leble amul droit di jël ca loolee dara ba nga xam ne nii comme ni mu ko waxee loolu mooy la mandu mooy tool bi dafay war a nekk garantie waaye moom warul nekk di jëfandikoo tool bi di ci am intérêt ba pare ñu fay ko borom mu mat sëkk rasul sallallahu alayhi wasallam loolu la doon wax naan bépp bor boo xam ne jur na intérêt loolee day nekk riba mi ngi noonu jazakallahu xayran wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ki def waaw ndax yonent bi alayhi salaam mu ne allahumma madrasa déedéet loolu du wax yonent bi alayhi salaam waxe ay woykat ya ay waxi woykat la mooy al umum madrasatun ida adata adataha adata yani qawman shaaban mi ngi noonu tayibul araqi ida adataha adata shaaban tayibul araqi heure boo xamee ni nii yaay da ab école la su dee ne yow préparé nga ko yaa ngi préparé benn nation boo xam ni bu laab lool la nga xam ne mooy ay sijitam ay ay jukkoom waaye loolu da waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wasalaam la nga xam ne moom la ñuy tegtaloon mooy fazfar bi zaati diin taribat yadak da daan wax naan daan takk jigéen ngir ñeent ngir famille ngir alalam ngir taaram ngir diineem heure booy takk takkal borom diini soo bëggee am lu barkeel loolu lañ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal naam bismillah naam waaleykum assalam wa rahmatullah naam
léegi ñu soxla xaalis ñu utiliser ko léegi moom fekk na yor na xaalis boobu bu génnee xaalis boobu ndax frais orange mën a yore nga xam ni bu dee par dix mille dix mille boo ko boolee cinquante mille frais bi mën naa gën a wàcc ndax xaalis boobu ñu ko wax moom mën na ko jël moom mi moom mi nga xam ne ci téléphone la nekk
ala kulli xaal xaalis boo xam ne dañ koy cotiser dafa am ci luñ ca charto mooy cotiser na ñun daan charto dix mille dix mille ka kay joxe day xam ne dix mille la fa charto heure bu ñuy décaisser xaalis bi dañuy xam ne ñi nga war a décaisser somme boo xam ni day nekk dix mille fois vingt personnes wala fois nangam personne waa ji nag nga xam ne moom mooy denc xaalis bi fa nga xamee ni nii foofu la koy denc loolee moom ay charge am la lan ca garantie di ko ca frais wala mu ko cay ñàkk loolu moom mbiram la mais ñi nga xam ne ñu siq mbir mi daal la ñu siq ak moom mooy nañ ko jox na génne la nga xam ne mooy xaalis ba nga xamee ni ni moom lañ ko joxoon muy valeur bi léegi nag moom la nekk ca comptam Orange Money su boobaa su dee ni gis nañu ne ah man kat xaalis bi ngeen ma doon jox ma koy dajale sama compte bi ma ko décaissé des na nangam dañuy xam ne lii kon xaalisu mbooloo mi la. su boobaa mu xam ne kat xaalis bi xaalisu mbooloo mi la ndax contraire ba mooy bu doon def na ci ay frais yoo xam ne nii moom bokkul ak ci xaalisu boppam la ko jëli heure bu koy wax ak ñoom dana lay def naa ci frais sangam loolu daal moo tax ki nga xam ne dañ koo jox muy nekk trésorier lépp loo xam ne nii ay bénéfice yu jóge ci xaalisu trésorerie ba da koo war a leeral comme bépp frais boo xam ne def na ko ci trésorerie bi da koo war a leeral wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal mbokk kon yaakaar naa mënees nañu doy loolu di ñaan yàlla subhanahu wa taala la nga xamee ne nii mooy waxi fiq moom lañ ca wax tey mën nañ ca delloo gannaaw suba comme na ko fuqaha u yi doon waxe ñun du ñuy fuqaha u ay taalibe yuy nettali waxi fuqaha u yi la lépp loo xam ne ni jub na ca yal na yàlla nangul ñu ko lépp loo xam ne njuumte la yal na yàlla war ñu ko te xam war ñu dëgg wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain